li mu am kenn ku ne xam na ne ab cëram la kenn ku ne xam na ne mooy sëriñ Mortala Fall moo donn seex Mortala Fall moom maam Cheikh ma Fall waaye jataay bii nu toog moo fi gën a woyof moo fi gën a woyofal boppam moo fi gën a suufeel boppam fii mu toog si toogu gii wér na ma ni de bu mënoon a ñàkk wallahi asim du fi toog barkeb Cheikh Ibra ndax woyof gu mu woyof te loolu ñi mu bokkal ñëpp xam nañu waaye ku di ab taalibe xamee ko bu jaxaw jaxasoo woon ci biir mbooloo mii dina am ñoo xam ne duñu ko ràññee ak daam faal mu nekk ci biir mbooloo loolu nag ak tawféex la bu ko suñu borom defal moo tax mu mën a taxaw ci kanamu njaboot gi ñaan ci doole Cheikh Fall yàlla na ko suñu boroom téyal fanam wi ak wéram gi sëriñ bi wax ne mi ngi sant sëriñ Cheikh Khadim mu ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal te xam ne di seereel mbooloo mépp ni sëñ Seex ku ko fonk la sëñ Seex ku ko weg la sëñ Seex ku ko waggar la sëñ Seex ko jàppale la sëñ Seex ku koy déglu la te loola lu yàgg la tàmbaliwul démb tàmbaliwul bëkk démb loola ñi mu jaxasool xam nañ si dara mat nañ si seere sëñ Seex ku gore la sëñ Seex ku baax la sëñ Seex ku yiw la te loolu man maa ko wax fii si jotaay sëriñ Amdi Fall seere ko kon ni ñaan liggéey bii nga xam ne moom nga taaw nga xam ne amoo gën bëgg lu liggéeyal sa maam Cheikh Rafa te lépp loo si am xam nañ ne sa yéene mooy bokk taalibe yëpp yàlla na suñu borom jàppandal la lépp yàlla boo dajeeg benn pakk wala benn galkal wala benn gàllakoor foo bëgg a àgg yàlla na nga ko weesu barkeb Cheikh Mourtala barkeb sëñ Mat Fall mbenn barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall di la sant di la gërëm si turu mbooloo mépp Baye Fall yëpp ameen lañ la njukkal dañuy roy si ab yar dañuy yor si yow ab ay teggin te loolu mooy fondement ak taalibe dañuy roy si yow ak dal dañuy roy si yow ak yiw ak nite nite lu am solo la nite lu am solo la boo ko génnee si nit rek dara dootu si des te Serigne Cheikh ku nite la Serigne Cheikh ku xam àddina la ku mën a jaxasoo ñépp la kenn xamul sikkam kenn ku mën a feeñal sikkam këm amul te loolu nun ñëpp kenn ku ne mën ngaa yëkkati sa loxo seere ko si jëmmam ji jagleel ko ko suñu borom jagleel la nu yéene ko ko lool ànd seek moom lool moom njaboot gi àndal yépp te it wér na ma ni keneen ku jëloon kaddu si njaboot gi mu bokkal Cheikh Rafal bu jëloon kaddu di wax ma la day wax lu weesu lii ma wax waaye du wax lu ko yées si jëmmi seen Cheikh Khadim kon yàlla na ko suñ borom fayal yàlla na ko suñ borom euh, ràng mbooleem jumtuwaay yoo xam ne ku bëgg a liggéeyal Cheikh Rafal fa mu bëgg a li mu yittewoo lépp yàlla na ko suñu boroom defal tawfeex gii am fii nag tey yàlla na doon naataange si réew mi yàlla na doon fajug aajo si képp ku fi yeewoo yàlla doon njalbeenu soppiku jëm si tawfeex goo xam ni kenn ku ne da koy am di ñaan si barkeb Sëñ Amdi Fall jotaay bii ku fi indi yitte ju mën a doon muy jàngoro yooyu la yittee àddina yàlla na ko suñu boroom saafara booy génn bunt bii rek lépp di saafarawu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kàddu yi nag maa ngi koy wax ci turu Serigne Fallou Fall mii di sama kilifa sëriñ bi boole maa moom ak Serigne Dame mii ak ñi ñu àndal di sant sëriñ bi bu baax léegi bi ko Serigne Fallou nuyoo jox ko addiyaam damaa war laaj ma ne ma addi jii de attanuma ko neel sëriñ bi dama koy delloo de te loolu yi defu ko muy ngisal de ndax loolu lay dund moom mooy jël di def ci Serigne bi waaye soxlawul. sëriñ bi di jël di dox si moom loolu nag mooy melaw aw taalibe sëriñ maam làmp dafa fàttali léegi soññee léegi si ak taalibe ndax nun ñi ñëpp li nu tënk si sëriñ bi noo sukk fi kanamam wax ko jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi kon li nu tënk benn baat la muy baatum ndigal kon waxtu woo xamante ni juyoo nañoo ak moom nañ daal di def suñu yitte si delluwaat sa ndigal la di bañ di jëfe sunum xel tey jëfe ndigal ndax sëriñ saaliw yàlla nañ ko sunu borom fayal waxoon na ni am xel moom day dem ci garab yi dem ci géej yi dem fu ne waaye ab tànk tege siw yoon mooy tax mu àgg fa mu jëm wan nañ nu aw yoon nag bàyyil nu fi ndono lu wir loo xam ne nii amul sikk sàkka bëgg sëriñ bi bañ bañ koo yemaleeg dara nangu koo liggéey rekk te yàlla tax loolu dong la nu fi Cheikh Rafal bàyyil ci ndono ñii toog di njabootu sëñ Tubaa Cheikh Rafal day làqoon na lépp ba muy ñëw si sëñ Touba indi na alluwa ju mat sëkk indi na ab juddu indi na teraanga indi na daraja waaye ba mu ñëwee jëbbal boppam sëñ Touba mu nangul ko lépp da ko réer ndax da koo jël teg ko si loxol sëñ Touba nangootu la xam nangootu la am lépp mu jox ko sëñ Touba ne ko féeteel ak yàlla yow mi ko xam man ma féete ak yow man mi la xam taxaw temm ngir lépp lu mënoon a gàllankoor sëñ Touba si li mu diggee ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam seerafal taxaw sa loolee ba sëñ Tuubaa du am yitte lu dul rasulullahi ak yàlla sunu borom loolee nag kenn ku ne xam na ni fam sa fée féete woon matal na waaram matal na ko ni sëñ tubaa matale waaram sëñ Tuubaa mooy xadimu rasul baat boobu suñ ko tuddee moom rekk ko jagoo kenn du ko werante kenn du ko xëccoo ak moom waaye Cheikh Ibra mooy baabul muridiin loolu ñëpp nangul nañ ko ku bëgg doon ab murid da ngay def la Cheikh Ibra defoon loo bëgg sëñ Tuubaa te defoo la Cheikh Rafal defoon kenn tuddeeku la ab murit Cheikh Rafal fekk na fi julli fekk fi woor fekk fi natt asaka ak i dem Makka waaye ba mu ñëwee lam tànnoon ànd ko sëñ Touba tey jii ku bëgg a doon ab murit yoon woowee dong ngay jaar kon nag nanu gën a góor lu baax te xam ne sëriñ bi li nu mënta ñàkk te mënaluñ ko suñ bopp moom la ñu sàkku ji si moom kon nag faw ñu nangu ñu takku ak buum topp ci gannaawam lépp lu nu digal nu jaar sax te di moytu lépp lu nuy tere di bañ di topp sunum xel tey déglu baatum ndigal sëriñ bi moom la ko war nekk na sa mooy digle waa kon nun taalibe yi nun murit yi li nu war mooy déglu baatub sëriñ bi te sëriñ bi kat ñoo ko mën a waggar ñoo ko mën a teg sa kaw ñoo ko mën a fonk ñoo ko mën a téyel kàddoom kon loolu yi bu nu ko sàggane bu nu ko foyee kon ñi ngi sant ñëpp di yemale foofu sunu kàddu di jéggalu ñëpp ñi nga xam ne sunuy kilifa lañ toog ci jataay bi di dollee siyaare su njabootu sëñ Tuubaa gi teew léegi lañ may xamal ni ma ñett ñoom ñett ñi toog ñëpp maam Cheikh Ibrahima Fall lañ leen duppee muy njabootu sëñ Tuubaa di njabootu Cheikh Modou Bassir loolu tawféex la ak jagle la diggante sëñ Bassirou ak Cheikh Ibrahima Fall ci xam rek sëñ Bassirou na ko xamal ku xam dara ci Cheikh Ibrahima Fall diggam ak sëñ Tuubaa ci sëñ Bassirou nga ko xamee moo ko nettali loolu tawféex la ak jagle la. mooy ak déggoo gu nu amoon ñoom ñaar ba mu daa ñëw si moom di ko laaj ak di waxtaan ak moom mu koy leeral loo xam ne fekkiwuñ ko wala xamuñu ko kon loolu tawféex la sëriñ bi ñu ngi ñaan seen tànk yi ngeen ñëw fii si kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ñaan seen turandoo bu baax woow yi ñu ngi ñaan si kattanam ak ak màggam daraja ju mu dencal ku baax yal na leen ko xëpp barke maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ngeen yàgg yàlla na ngeen wér yàlla bu leen dara dog barkeb sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall asalaamaaleykum wa jërëjëf ndigal li mooy sikkar si wéy waaye sëñ Dame Soda seen jigéen bu baax bële soxna Khady Fall waañam ca buntu stade ba la ko def na ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan na ñëpp tàllal maam làmp mu Cheikh Mouhamadul maam lamp mu seen Cheikh Asou Fall maam lamp mu sëñ Moussa siru waaye soxna Khady Fall seen jigéen bu baax bële waañ la teg ca bunde saat ba jébbal ko magam ju baax ji mu ñuy sëriñ Cheikh Khadim Fall kon digal li mooy ñu jox sëñ Daam Ndiaye sëriñ Cheikh Ndoye Sikurulaahi ñoom nu wëyal sikkar si ba bët set bisimilah. la ilaha Spirit. la ilaha hylää. Judah, and look on life. لا إله إلا الله

له Cheikh Ibra sëñ bi ne nañ ko jox addi maam Cheikh Ibrahima Fall nañ ko jox addi maam Cheikh Ibrahima Fall nañ ko jox addi maam Cheikh Ibrahima Fall na ko ñëpp jox addi maam Cheikh Ibrahima Fall nee na ñëpp na ko ñëpp jox yi maam Cheikh Ibrahima Fall na ko ñëpp jox addiya maam Cheikh Ibrahima Fall la la Cheikh bana la ya baax junoogu laa ilaaha la ilaha رسول لا إله إلا الله يعلم na addi ñëw na addi ñëw an addi ñëw doyugul de na addi di ñëw Baay Faal yi am nañ mu ko mën nañ ko na addi di ñëw yaa ma man la faalo Cheikh baana la baax juddoo la Diouf la baax juddoogul ilaha illallah addee maam Cheikh Ibrahima Fall jox leen ko addee maam Cheikh Ibrahima Fall jox leen ko addee maam Cheikh Ibrahima Fall Baay Fall am ngeen ko mën ngeen ko jox leen ko addee maam Cheikh Ibrahima Fall la ilaha la ilaha la la la ilaha illa Allah ilaha illallah la ilaha illallah la la la la إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله ilaha illallah la ilaha illallah la góor maam Seynabu Njaay lii lépp yaa waa Seynabu Njaay lii lépp yaa waa faal Moodu Mustafa yow da yaay baabil ula faal Moodu Mustafa yow da yaay baabil ula Moustapha daw da yaay baabil ulo jox la nga addee Seex Amdi Modou Moussa Fall jox la nga addee Seex Modou Moussa Fall daa bay seex jaayu leen faal alas jaayooti naa daa bay seex jaayu leen faal aras jaayootina baayu góor borom sama baax yàlla daal faal nga yëngoo faal faal nga yëngoo góor borom sama baax yàlla daal faal nga yëngoo ñaan yépp nangoo ngi ñaan yal ñaan yal na ñaan yépp nangoo dellu ñaan yal na ñaan yépp nango la la la la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 فلا إله إلا الله إلا الله فلا إله إلا الله إلا الله فلا إله إلا الله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله fala ilaha illallah fala ilaha illallah ñu ma loo fa yal ma reew dooli biir faal ak bite dooli biir faal ak bite dooli biir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 xamul woon waaye ñii doo seeni morom si xiw na laa xamul woon waaye ñii doo seeni morom suur maam si nam njaay maam seera fal goor yabula la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah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 Ibra Fall yaa ah, mat boroo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Fall la ilaha illallah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 nee naa la baay faal ku mel ni yow faal masiifu ko gis si xibra faal yaay baay faal ku mel ni yow faal masiifu ko gis si xibra faal maami Seex Moodu Fall Fall maami Seex Amdi Xadi Fall na ñëpp def dina màggal Seex Ibra Fall Seex Ibra Fall Seex Ibra Fall Seex Ibra Fall yaa mat boroom Amdi Fall Seex Mustafa Fall kul kanaama yaa ko mujjee Amdi Fall moo dem saaba baayu sëriñ siidi gorenga am di faal maam muudu muudu ma am dee baayu bee gorenga muudu yaay dee ñu biri dakar baay garem nga doon ñaan am nga ko mu di yaage ñi bil dangar baaj ngaram nga dool ñaan am nga ko mu di yaage ñi bil dangar baaj ngaram nga dool ñaan am nga ko mamaara wii ga demaabo aada koore mu teexe Sidi Karim Diop góoru Badar Diop sa baaru demaaneex jëfe naa Sëriñ Seex Faal baayub góore yàlla daal nga sore mbalooy faal yërmande faal dooley biir faal fam jëfe faal ndimbala yërmande yaga beex keroog doo le jëfey faal la ilaha illa la ليلة نايفال إنه لايفال ليلة إلا لا نملا لايجان يرمان دفال شيخ إبراهيم كيرك دو لايجان فيفال ملو yermande fal bir fal fam jabay fal la ilaha illa la ليلنا لا يفعل إلا لا إله يفعل إلا لا يفعل لا إله إلا لا لا إله إلا لا يفعل إلا لا يفعل تلالين لخو يفعل ما بسرفال نيان منانغو أمينو فال Aminu Faal barke maam Seex Ibra Faal amina yaa rabbi bi xurmatil jidaal wa xurmatil quraani الجبال صلي وسلم على